suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ne su ko xaari doon jar youtube tv bësal na station bi ñu tàmbal la nga mën abonné ndax ngay am vidéo yi ñu dugal jour di siyaar waa mboolem waa tv di rafetlu bu wér wér liggéey bi di siyaar suñu bunt si yàlla sang cheikh famara mii nga xamante ni ni cheikh moussa moo ko ci mom, ba mu talal ñu loxom la cheikh moussa doon def ndaw yi mu def ko ci ñun mi xam yalla ag ci yalla di bég bu wéré wéré wéré wér ci si ziar daaru bi ku ne ziar ziar moy siada moy yokuté képp ku ñëw fi na la bir ni yok nga ci yalla te yow sa bir bop di nga xam ne nga ci yalla ana lu waral lolu cheikh moussa da indi xam-xam bi nga xamante ni moy jëlé jam ci lëndëm indi ko ci lèr moy jël jam ci wayu mala indi ko ci nit ñun ñi ñëpp ku ci nekk mën nga séré si yalla ni Cheikh Moussa Cissé ñambe borom daaru defal na la lool mi manam xamal na la yalla nga ag ci yalla gis yalla fa nga daj da do ko jaawale kenn mo tax sa su ne bu ñu ñëwé ci bërepp bi ni ni lañ fi ñëwé ak yëkkatiku lañ fiy ñëwee akasa ay tamit sa su ne it buñ fi ñëwé dañuy gëna soñu gëna yéssal suñu pas-pas nak saa dëkk bi lool demewul ni dakaar bu ñu defee benn soixante-dix ans en arrière jamono bi fi Cheikh Moussa nekkoon condition yooyu nga xam ne doyoon na waar lool taroon na lool mu doon wooteel leer bi doon ko tàllal ne tàllal naa sama loxo ba Màkka ba Touba fu waaye nekk yor naa sa njëriñ jamono jooju at condition yooyu loolu day am jeexital bu wér a wér a bu muy def si taalibe yi dañuy xam ne defuñ dara tàmbalee guñ sax kon ñëw fii dañuy permettre ñu gën a yeesalaat laxasaay gën kaa takkaat xam ne namm nañ lu sori te gis nga ko lu beure beure ñu fay taxaju yob ta Cheikh Moussa fala ag fala fa la ñu woo dafa ne kuma jox sa bop ta baye mak ak sa bop dina la yobu ci yalla ba nga yekko yobu ci yalla bop sa su ne dang kay dund sa bir bop sa su nek ngay gëndi sax ci lu baax moy ko lu ko bon koo saafoonteel li Cheikh Moussa def ci yow nga talal ko ko nak lool rek ko mën a taxel jamono lool rek ko mën a jamono. donc sa bu ñëwee fi jangat xaal bi gis tangor bek jaral gi ni ak mom jamono bu mu fi nekké di wota yalla mu ranké won wét ci lool lool ñun ñëp dañuy tëbb xaal dañuy tëbb xaal bu wéré wéré wéré wéré ñu gëna xam lu ñu yor gën ka fonk waye tamit yéne ko jaam yëpp nak li mu woté ni ku ko xamut ma lay jiñal ci lérub la ilaha illa allah foo munti jubli safara safara la nak yalla dafa né xam ma balaa nga may jaam boko xamul mëno ko jaam ta cheikh moussa xam yalla googu non la indi jamono mo tax mu né li ma woté ku ko won ginaaw at doon safara modi sa kër kon nañ ci dimbali jaami ndéem texe nañ xam nañ yàlla ñu ngi koy gis di ko jàpp di ko yég di ko di ci dox di ko xalam di ci xalaat noo yëg-yëg boobu nañ ko jàllale jaam yi ndax lii rek ay jëriñ jamono lii rek ay tax jaam texe kon lii Cheikh Moussa def ñu saa bu ñëwee nii dañoo war a gën a taxaar la xasaay ku si nekk boo delloo si bërëb bi nga xamante ni fa nga nekkoon nga tàllal li nga xamante ni moom lañ la jox ngir ku ko xamut munoo texe munoo jaamu yàlla ku ko xamut doo murit doo dara ndax lii moo sos tarixa yëpp mi xam yàlla àgg ci yàlla kon yëg nañ ko damuy dëgg nañ ko taalal jaami ñu ngi yeeslu bu wér ci kàddu yi ah xanaa kontaan ci yéen rek di ñaan gis nga ko oto yi ñëw yeneen caméra yu gën a yaatu yi ñëw nax yàlla am na ko te it jox na ko nitu saayiri rawatina nag gis nga ko yéen ñi nga xamante ni yàlla ngeen di liggéeyal kon yàlla na yàlla gën a naatal gën a dëgëral waaw kontaan nañ bu wér a wér a wér ci yéen asalaamaaleykum maa ngi leen di ziyaar yéen ñëpp di góor yàlla yëpp di leen jaajëfal bu wér wér di wax rek kontaan nañ billaay ndax daaru moom saa su nekk moom day gën a yaatu gis nañ ci yokkute saa su nekk moom. yëg-yëg bu doy waa sax loo xam ne moom ku xamul yàlla moom mënoo koo xam fii rek la xewee fii daaru rek la mun a xewee billaahi ndax lu ñu dox dafa doon dëgg goo xamante ne mënoo koo xam tànk dundoo ko billaahi lu leer nañ lañ ñu jox. waaw nañu gën a góorgóorlu rek te xam ne yàlla moom amul góor amul jigéen. amul góor amul jigéen ñu ñëpp ay góor yàlla lañ nañu góorgóorlu jaayante bañ a xaar kenn gën a góorgóorlu takkaat laxasaay góorgóorlu bu baax a baax ndax am na woote waaye amul xaare waaw ah, Ndiamé TV ñoo leen di jaajëfal kontaan nañ si taxawaay bi lépp rafet na kontaan nañ lool ci kaw ci kanam rek waaw ndax ziar sosuñu ko si ndax maanaam Cheikh Moussa daa woote rek ñu wuy si ko te maanaam amul njëriñ gu mu ñu jox waaw manam ñun ay talibé sang Cheikh Omar Ndiaye lañu bass Ndiaye moy suñu sëriñ sang Cheikh Omar Ndiaye mo nekkon talibé Cheikh Moussa yaa dégg nak dafa fekk ni tamit ñun eh, kenn ku ci nekk dañu jox top ab sëriñ top ku ñu top sëriñ nak top ñu ko ngir manam bëgg-bëggam wala ngir ñu suñu bëgg-bëgg dédét nak dañ ko topé ngir yalla ndax manam kenn ku ci nek alquran hadith lepp seeda na niki manam kenn ku ci nek da nga wara jog sakku ji ab sila bi nga da lay agale ci yalla yaangi deg kon lolu mana manam ñun ci lolu lañu farlu dal lolu mo tax tay ñu wëlbeetiku yaangi deg top ak manam Bayas Ndiaye mom nak mo jël xam xam xam yalla def ko ci ñun di di di sante yalla rek wa ya di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfati Baye Gueye jërëjëfati di sant yàlla di wax ne déwénati déwénati déwénati waaw di sant yàlla ci bës bi bés bu tedd bi bés bu màgg bi bës bu mat bi muy bésu Cheikh Moussa ziyaara bi ziyaara nag buñ ko waxee mooy dolleeku mais bësë bi nga xamante ne tey jii bés bi dafa am lu ko sos naam moom bi mu ko fiy woote pourtant moom rek la woon de ñu ne moom rek la woon si wetu garab gi waaye xolam mbooloo mi kon lii woote bi yàlla la lii du woon ay caaxaan Cheikh ba mu koy woote moom cunum la woon kenn fekkeewu ko kon nag

mais dañuy faral di wax ne sant ki may mooy dolleeku su ngër mën a footur barke lem kon nag dañuy sant Cheikh Moussa di wax alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfati Cheikh Moussa jërëjëfati Cheikh Moussa kendu du Cheikh Moussa kenn du Cheikh Moussa mënoon na koo téye mu yam ci moom mais dafa ko tàllal nee na ku yàlla bind maa ngi ak sa njëriñ soo ko jël rek soo ko jël siwul sama loxo ba Màkka sama loxo ba Touba Cheikh Moussa loolu la wax kon nag dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla di di féetali suñu kóorale Cheikh Moussa di sant nag ki nga xamante ne mooy suñu bunt Cheikh Moussa si Cheikh Moussa muy Baye kon nag di sant bu baax di wax déwénati déwénati déwénati nañ ko fekkee ay déwén yu bëree bëree bëree bëree bëri. suñuy jaar jaar danaa wax ne fu ko xari doon jar dana ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu la foofu nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque